salaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ngi suivre ci wasaare lamb ak Lutte TV ñoo ngi leen nuyu bu baax di leen ziare ñoo ngi fii arène nationale ànd ci ak jam production mu war a taxawal benn combat pour le 8 janvier instant bi nag mu ngi taxawal ay combat taxawal na Ziza ak ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Super Jamono ñoom ñaari ñëpp ku ci nekk jóge ci ndam lu am am solo kii Petit Niang la mujjee daan ki Mamor doomu Faas la mujjee daan jamekee nag ni ay combat moom lu leer rek la bëgg comme moom moom ay mbiram dafa weex donc mu ni laay joxe sama avance taxawal tey régulariser tey pour le 8 janvier incha allahu rabbi ñaar ñi war a bëre waaye nag am yeneen combat yoo xamante ni bëgg nañ ko ci danañ waxtaan ak Jamaïcain waaye balaa ñuy waxtaan ak Jamaïcain dañuy waxtaan ak ñaari mbër tuuti ku ci nekk waxal nan ngay waajale sa combat xam nga sa adversaire parce que presque xulool nañ avant ñuy taal ma commencé ko ci Ziza maa ngi lay ngi sant sama sëriñ sëñ Abdoul Ahad ambassadeur di sant soxna madame Seynabou Mbacke di sant sëñ Aziz Abo di sant sama mbokku Tiwaawan yi di sant sama mbokk waa Bignona yi maa ngi leen sant bu baax a baax ak quartier bi mu dëkk quartier Yeewu. bëgg naa la randam bisimilah rahmaani rahiim bisimilah rahmaani ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi ñu sant suñu ñaari waajur bu baax a baax a baax di ñaanal papa Mor Faram fa mu nekk gënal ko fu mu jógee. di ñaanal aussi sama papa Baydi Sey fa mu nekk gënal ko fu mu jógee sama yaay Tata Mariam yàlla bàyyi ko fi xam nga di nuyu sama grand xaadim sama grand sama père sama xarit sama papa borom daaru baata xam nga di aussi Jams mi nga xam ne moo waral combat bi di tamit waaw Ziza ak xam nga. site internet bi fi taxaw nii waaw di la nuyu yow aussi. di nuyu aussi sama papa prési ak sama ménageur Père Djili. jaajëf kii ngay waaj a bëreel le 8 janvier incha allah rabbi xam nga ko. waaw kii xam naa ko bu baax a baax baax a baax xaw ma ko nàng sax. loo xam ci moom. ndaanaan la. ndaanaan la bi muy daan Mandela. waaw boobu booy laa maa ngi toog esaat mu daan ko may jooy. waaw mais sama mag Pambaay. waaw war na ma nan laa koy daanee. ndax kii ndaanaan la Pambaay sama mag waaw. ndaanaan la parce que daa ñëw ñun suñ catégorie ki si ëpp doole mu jàpp ko daan ko. Hmm. kon kii ndaanaan la. waaw ah, mais dama bëgg mu xam ne tamit ndaanaan lay bëreel. bëgg nga xam ne. dama bëgg nga xam ne yow Mamor ndaanaan ngay bëreel ba pare dama màgg si làmb. déggoo ma loolu yëpp amul sens ay da nga tiit yow bi ngay wax sax boo xoolee yow nga xam ne yow da ngaa man xaw ma lu may tiit si làmb juum mënut ta ñàkk mais Ziza dama bëgg nga xam ne yow ndaanaan nga mais ndaanaan ngay bëreel ba damaa màgg si làmb loolu laa lay wax. waaw loolu moom xam nga loolu moom sa détail yow loolu moom sa wax la xam nga chaque jour benn benn wax rek ngay faral di wax quoi damaa màgg kon da màgg da nga fexe ba wane ko da nga am fulla ak fayda yal na yàlla may wér-gu-yaram gudd fan même wér-gu-yaram gudd fan ba le huit incha allah gis nga ki daan ki la dàq ji ngay daw dama ko yenu ba si kaw dóor suuf kon yow doo ma jaaxal si kàttanu yàlla. ah gis nga ki la dàq ji ngay daw yooyu amul sens. lamb loolu amu si xam nga kan ngay bëreel Cheikh Super jamono ngay bëreel xale maa gën a dama bëgg nga xamante ne laa la yow sama tànk du dellu sama ginnaaw bu arbitre sifflé fi nga taxaw laa lay fekk. ma wan ne la carrément damaa màgg yow maam yow bu yow Ziza. asa nga mu baax a baax a baax. Mm. sama mag Pambaay war na ma ni ma lay daanee ba pare. amul jaay nañ la de Bambaye jaay na la. non c'est-à-dire xam nga Bambaye moom champion la parce que Bambaye man moo ma daan dama ko nangul champion dafa ma daan ba pare ma woo ko téléphone da mais du kii. man tamit di ma hmm. moom mbër la mbër kaamil la. kii nag mbër la kii tamit champion la mais Bambaye ñun moo ñu dàq bëre. ba ma koy jël man xaw ma ko woon. 100 pour cent ba ma daane pare dama ko woo téléphone da ko champion nga mais kii sama combat moom dafa am lu ci lal moom yàgg naa bëgg combat bi. fekk na ma sax stade bi peut-être boobu maa ngi sama difficulté mu fekk ma wax sax ba saaga mais man taxal wax wax ba ma bàyyi ko ci biir ma ne kii chaque jour buy bëree rek ba muy bëree damay seetaan mais du ma gis dama ne kii lu mu yàgg yàgg naa wax may saam ñu lijjanti suñu règlement de compte parce que affaire affaire de babi la hmm. moom xamu ko sax lu may wax nii affaire de babi la. xam nga yaa ngi dañ koy wax mu leer affaire babi la. xam yaa déglu ma man xamee wuñ ma ay wax nii. Hmm. mais gis nga kii hmm. moom yàgg topp na ma fu ne moom topp na ma fu ne léegi nag loolu day leer. dañ ko làpp dañ ko làpp moom li mu wax moom li mu wax. Ah. ci loolu laa jóg parce que moom am na fit xale la mën na bëri bu arbitre rek moom day ñëw. moom day ñëw quoi moom day ñëw moom day ñëw parce am na doole moom xale am na doole te pare na bu arbitre rek na yegg si quoi. yàlla kese am doole nga ñëw. non amoo ko. kon ni mu ko waxee man xale laa damay liggéey pur et dur mais dama bëgg mu xam ne moom. Hmm. mbër lay bëreel mënumaa jay parce que nga mu baax a baax dama bëgg nga xam ne mbër ngay bëreel yow dama lay sant waaw bi nga jëlee combat bi dama lay sant bu baax man yàlla xam na ne barki alxuraanu karim xaw ma ne woon sax damay bëre ak yow suñ combat bi ñu ko doon dox mu yàqu laa fàtte mais dama toog démb rek ñu woo ma téléphone ne ma diw ak diw yaa ak ma ne man pare naa aw ma lu may dogal. bu leen fayul juróom sax bu leen neexee nga jël ko. kii nag dafa jóge ci ndam lu rëy mais bien sûr c'est très normal. daan koo xamante ne gëj naa daan. waaw mais loolu c'est très mais man xam nga moom ci ndam la jugee man ci victoire la jugee. instant yii mënoon naa bañ a bëri parce que combat bi nekkul woon maa ngi moom man du ma toog parce que sujet de famille laa quoi du ma toog man du ma toog di xaar kenn xam nga man suba suba boo ma fayatoon daf maa fay lu bëri na ma bëreel ma bëree dañ koy sant tamit promoteur bi. parce que ndaw la boo xam ne nii xam nga. moom day liggéey. te ñëpp jàmm leen yéene. dem bañ toogee di wax ma ma naan combat a ne ma Cheikh Super Diamono dama ne ko ah. woo rek mu woo ko parce que loolu la promoteur di doxee kon ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla jàmm combat bii nii bii nii dama see teg sama lii parce que dafa am lu tax. sa bakkan nga ci teg. parce que kii foog ma tëj laaminam. rab kii li muy wax nii combat bu buñ ko jaralee benn jaral na ma mil. man xale laa. damay entraîner pire et dire naxewu ma sa dégg bu baax a baax naxewu ma li may waxee yow nii si la ma feebar mais kii lu mu ko jaral benn jaral na ma ko fukk. duma la may tus foo taxaw dama la fay fekk déggoo ma. dama ne la du ma la may tus laa la wax yow laa la wax. Ziza du ma la may dërëm. ah ma la naa la man ku lay ñaan. dama duma daan la amul négocier. yow moom loolu moom sa la sa façon de parler la. mais la ñaari mbir naa la xamal de. bu dee benn da nga yaakaar ne yaa ma doole. wala yaa ma dàq bëri. billaahi nax nga sa eh. la eh. nga teg sa tànk amee rek buta dootoo ko defet yow mi dama lay wax lu leer nga dégg de. daan ba nga ñibbi may soog ngay xasoo nga xam ne daan naa la ba booba dama lay daan ba nga ñibbi seen kër. booy ay soog a xam ne daan naa la. yow boo booba. yow waaye sëñ bi yow yow. te tey leen naa la xamal de wutal ay abdominaux te nga bàyyi rew yi. Eh, yow yow sëñ bi rew lan eh, rew jigéen ko. dama mujjee bëre loolu man du ma kooku yow bu ma la man damay jëf nga dóor xam ne xale laa. damay jëf man damay jëf ay noonu amul. man xool kooku lijjantiw ma ko. ay bàyyi rew yooyu noonu. bu arbitre bi sifflee su arbitre bi sifflee ngay xam affaire yi du ay abdominaux ak yooyu affaire yi contact la ak doole ak physique mm-hmm. yow da ngay entraîné pire et dire te ndaanaan nga non yow ndaanaan nga nit ki xoolal wax sa baaxu morom wàññiwul sa mbaax dara yow ndaanaan nga. mais dama man déggoo li ma la. dama bëgg déggoo <laughs> ah dama bëgg nga xam ne xale maa na ngay bëreel loolu laa bëgg nga xam naxante amu fi. waaye wala wala wala daa am lu ma la bëgg a laaj quoi yow xanaa yow yow yow yow fukki bakkan nga yer yow yow chaque jour nga ne màgg naa yow chaque jour nga ne màgg naa bëre naa xanaa ba may bëreeg Rambo boobu màggoo woon ba may bëreeg Pambaay màggoo woon ba may bëreeg ay jaajoor kon bëree woo ah? boobu damaa voilà loolu nag laa bëgg mu leer sa nopp comme boobu bëre woo nag bii nag di nga bëre. jërëjëf bii nag di nga bëre. bii di nga bëre yow. te loolu na la leer. te loolu bu loolu weesoo. jërëjëf kontaan nañu jeex na waaw ñu ngi taxawal xaaral jàmm kay jàmm waaw ñu ngi jégalu ñëpp ah. ñu ngi jégalu ñëpp waaw waxu leen fi dara lu garaaw. da ngeen di neexal na neex na sos jambaane lii de lii lan la lii ci biir lii bul summi bul summi garaaw lii lii lii la bokk déedéet lii lan lan waay bàyyi te ngay a waaw waaw xaaral xaaral jam maa ngi baax a baax ñaari mbëri la ñuy waxante doy na war de jàpp leen a rek jàpp leen si jàpp waaw xaaral xaaral xaaral xaaral bul ko dóor waaw xaaral xaaral xaaral bi nga bëgg bi nga gën a Cheikh Cheikh jàpp leen ci nag. bu ngeen dooran ba doorul doorante. xaaral da ngaa ñu xeex rek yow instant bi loo mën ñu xeex fi mu. xeex bi bañ. ndax yow Birasène dina la aj de. <laughs> nan la may aje ah, man mii àtte kay bañ gaa yi xeex. Ah. bañ ku ma aja tax. ñu ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay delloo ziar El Hadj Lamine Seck. Mm-hmm. di la nuyu di nuyu assistance bi yëpp képp ku fi teew ñu ngi lay ziar bu baax. Mm-hmm. di nuyu njabootu làmb yëpp. di nuyu amateurs yi supporters yi fans club yi mbëri entraîneurs yi képp ku nekk ci làmb rek maa lay ziar bu baax di la nuyu. jëm mm-hmm. xanaa sa yaram dafa tàng. <laughs> non sama yaram tàngul sax Lamine xam nga comme ne nañ la roi de Ibamar dañ ñëw pour confirmer rek. mais mais bii jëmul Ibamar. fa la jëm. ah Ibamar ngay dellu. waaw damay dem confirmer ji. ok waaw damay dem damay dem damay dem confirmer damay dem jëlaat couronne bi teg ko en jeu. bàyyil tëkkuwaate bi te dara xew ko. tëkkuma kenn di couronne bi laay dem tegalaat ko gars yi en jeu. Ah. waaw fa laa jëmaat de. incha allah le 8 janvier lan moo tax combat bi date bi jege. waaw Lamine mbëri ay xale lañ ñun ay xale lañ kii yaakaar naa boo xoolee kanam gi xam ne toj-toj bi sax wéragul. maam Mor waaw moo tax mu ngi juum ci biir kii bi sax naan maam Mor ma ne ba tey moom da pour moom combat boobu jeexagul fekk boobu jeex na ci beneen la jublu moog Ziza. Hmm. ndax ñoom chaque jour ñu ngi entraîné entraîné mooy seen liggéey. Hmm. lamb lañ yaakaar liggéeyuñ ci bureau liggéeyuñ ci office ci lamb la ñuy fayeekoo ñun tamit lamb lañ opté di ko def date yaa ngi fi samedi yaa ngi fi dimanche yaa ngi fi suñu paree pour liggéey ñoom ñu paree pour bëree warul tardé dañu war a ñëw jublu ci ñoom ñu jot avance ñu tëgg làmb ba amateur ñëw wuyu suñu. Mhm. lii problème bi mooy amal ay combat yu amateur yi bëgg te comme ñun bu ñu tëggee amateur yi wuyu suñu kon du yoon ñuy toog di xaar lu ñu gis daal loo xam ne nii gis nañ ne date bii mën nañ si organiser dañuy organiser. Mhm. Mhm. bëgg nga xam ne tey combat bu mag a mag a mag ñoo fi waroon a daje. waaw ah, dox nañ ba baax waaw benn gàllankoor bu ndaw moo ko xaw a téye. Ah. na pour le moment ñu ngi arrêté gu mun naa am fii ak suba ñoom dinañ raisonnable delloo ci seen xel xam nga léeg-léeg na nga jugee ci ndam loo xam ne nii wala nga jugee ci yenn combat yoo xam ne man na laa yóbbu yenn niveau yoo xam ne léeg-léeg nga wax benn wax boo xam sax doo ko bàyyi xel wala doo ko xalaat. Mm. waaye xaj na bu ñu nelawee ba ndam li xaw a rees waaw dinañ ñëwaat raison non loolu nañ ko leeral quoi parce que bu ñu nee ndam la xaw rek ñëpp dañ eh, xam ne ah, Pape Ndoye lañ doon wutal moom lañ jubóol moom kase bi ñu ko proposé nanguwu ko bi mu ñu proposé ñun tamit nanguwuñ ko dañuy wuti yeneen adversaire rek sans problème relation yi continue waaw non loolu la ñoom suñuy waay lañ ndax ñun ñoo ko proposé woon combat bi yàgg na ñaari mbëri muy Abou Ndiassé muy Pape Ndoye ak bi ñu ci bëree woon yëpp suñu pare kenn ku ci nekk dinañ la joxaat combat te confirmé nañ ko gis nga si Cheikh Super Jamono Pape Ndoye confirmé woon ko ci moom tey jii waroon nañ fi daje adversaire waaye dafa am lu ko kale Abou Ndiassé tamit wax dëgg yàlla na gars yi amateur yi xaar mag man moom incha allah rabi ci góor a soog fils da balle lañ koy yóbbu. waaw ñu ñu naan ay frère lañ ndax fu gars yi ne nañ fi nga wokk. foofoo xasan foofoo a delloo fa sab loxo. kon kuréel na nga koy andi. ndax ñu bëri dañ ne dimanche bee tax. Ah. ma jëmaat samedi bu paree na ma CNC accordé ma def ko vendredi wala mercredi. wala nga def ko lundi. wala lundi Iba Mar moom dama bëgg a wane ne gars yi maay roi bi. kon baax nañ yónni yàgg kontaan nañ ci yow bu baax baax a baax. waa di kontaan ci Sénégal yëpp di nuyu ñu ñuy ñaanal yëpp. Mhm. fépp fu doomu aadama nekk di del sa loxo di ñu ñaanal mhm. ñu ngi lay delloo ñaan gi yal na la yàlla defal jàmm mhm. defal la sutura defal la xewal di sant sunu sëriñ bu baax a baax a baax Mouhamadul Mahdi Ibrahim ak doomam Cheikh baay Mahdi dinay kilifa diine kilifa aada yi nekk ci réew mi yëpp bu doon ñaari mbër yu mag ñoo taxaw nii ay VIP comme ni ma ko lëngee nii naan mbërëm la mbërëm la noog ay fu ñu jaar ñu ñëw raison xam ne ñu ak ñi ñoo bokk ndey ak baay. man tey kii nii bu ma soxlaa dem këram dama fay dem kii bu ma soxlaa dem këram dama fay dem en tout cas li ma bëgg mooy. ëpp leen gaa laaj. an gaa man man Lamine si sàkku ñaan laat bàyyi ngay def lii baxana la rek dara nekku ci <laughs> bàyyi sa yi man gaa man ma juddoo léegi dama fi mën a xam gaa laaj. man li ma jaaxal da ngay teeñu teeñu ay teeñ ngay yor. la <laughs> man kay ñoom laay ñaan rek kenn ku ci nekk ne may sóoraale bu demee si ñaankat mu jàppale ma indiwaaleel ma benn butéel. waaw maa ngi sàkku ci réew mi yëpp nag ñu ñaanal ma maa ngi ñaanal réew mi yëpp. di la nuyu di nuyu waa wasaare Ousseyn a caméramanam mm. di la nuyu yàgg sa caméraman di nuyu Paate ñu nga borom Gambia. xam nga moom Gambie la jógee ñëw ci journée bi. Mm-hmm. waaw ba léegi mu ngi fi delloogul di nuyu seex Ndoye bu baax. maa ngi koy sant l'infatigable l'infatigable di nuyu Xaadim Anta Seck. Mm-hmm. grand mor bu parcelle. waaw waaw staffu jam production bi bàyyiwuma kenn. Mm-hmm. di nuyu jiidi wasaare sama xarit di nuyu Lamine Samba. di la nuyu yow bu baax. wala ak Lirou Diane ñoom ñëpp staff bi ak Lirou Diane staff Jam Production dafa yaatu. ay ah. promoteur ngi si journaliste ah. yaa ngi ci. mbër yaa ngi ci entraîneur yaa fans club yaa ngi ci. te incha allahu janvier Lirou Diane dina ci am de. waaw incha allahu rabi. waaw ah. ak ñu ñu war a janvier dinañ ci tuddee Lirou Diane drapeau. te dinañ ci rendre hommage ñoo xam ne ay kilifa la ñu woon nekkoon ci làmb doon ci bay seen waar doon ci def lu nekk ndax ñun amuñ lu dul làmb Lamine ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu sama papa père ba hmm. ak doomam Mansour ba di wax amateur yi affiche bii ñoom laa ko indil te nag nañ xaar leneen incha allah waaw jërëjëf maam Siza ak Cheikh Super Jamono Pikine la ak Géejawaay la kontaan naa ci yow maa gën a kontaan ci yow